léegi combat boobu yàqu na. ndax boobaa ak léegi promoteur yi ñu lay woo di wax sa combat. ñu ngi commencé gu la waaw boobu boobu ba léegi euh, promoteur yi ñu ngi may woo démarché samay komba hmm. waaw. yow ak kan. waaw Fallou Ndiaye woo ma fi du ma waxagum maa maa kan ak kan mais Fallou Ndiaye woo na ma fi Sam woo na ma fi. ci saison bii nii nii. waaw ci saison tax jubóo amul sa digganteeg Sam wala sa digganteeg Fallou. Ah? lan moo tax juboo amul sa digganteeg Sam wala sa digganteeg Fallou. non woo nañ ma mais woo ma tekk tekkul ne dañoo war a juboo far force xam ne mën la woo tamit wax la ay adversaires yoo xamante ni mu ah, boobu kay fexe leen mu taxaw na ngeen. waaw non yàlla bu fekkee ne yàlla sunu borom nam na mu taxaw rek dina taxaw kàttanu yàlla mais Fallou Ndiaye woo na ma. pare nga pour bokk ci. non man moom pare naa pour bëre moom. garaawul ñu tàppituñ loolu. bëri nga ak ponkal de waaye ponkal yi nag. <laughs> loolu daw suma yaram. barki maam Cheikh Rafa. am na ku ma ku li ngay wax ni sax moo neex nag comme li ngay wax nii naan ay ponkal la ñoo nangam nangam. Ah. loolu moo neex. da ngaa sawar ci bëri ponkal waaw damaa sawar ci bëri ponkal xam lu tax ma sawar ci bëri ponkal ndax boo taxawee da naan waaye yow lu tax muy dugg ci ñii ñi nga xam ne dañoo am doole looloo neex. man ndax combat bu ma mës a rek naan waaye Alioune Seye moo moo mooy favori moo dàngam moo nàngam mais ñee même su ma leen dàq ba tamit dinañ ne moo ko ëpp doole loolu tax muy neex. sa digganteeg Yanda daal nga bëgg mu ñëwaat. waaw wala lu ko raw kay wala lu ko raw waaw. ñu ne amoo benn waaw ndax ñi ñi ñi ñi ñi ñuy wax ñi ñuy tudd nii ñoom la Yanda ñooy ñoo yem alir waaw mais nag sant yàlla bu dee nam mën a taxaw daal yàlla naa ci jël pee waaw. Hmm. yàlla naa ci jël pee. trois combats trois combats ak ak ak final li ma li ma bëree li ma bëree bëri ay dix-huit combats xaw ma dix-neuf de suma juum dix-neuf combats bëri nga ko waaw ñaata victoire am na ay quatorze victoire xaw ma quinze ans hmm. waaw kan la daan euh, Modou Lo mooma daan euh, Saalum Saalum Saalum Saalum ak Boy Bawol Boy Bawol waaw ak. Euh, kan. xaaral. non non l'an 2000 l'an 2000 la daan moo la daan ma ba ba dalaa xee l'an ma nangu ne moo ma daan barki maam Serap Fall daanu ma. ah daanu la wallaahi daanu ma. kay comme tey fii Iba Mar Diop. waaye Lamine waay arrêté waay yow dinaa wax lii lu mu lay wax yow yow bu baax nga. jour boobu jour boobu teel ngeen <laughs> maa feesal stade bi ngay wax. barki maam Serap Fall maa fees stade bi. combat ba teg fees yëpp ma ñëw loolu kenn musu koo gis musul gis loolu daanu daaneel gis mais jour boobu xam nga la waroon demee mu demee noonu. lan demee non mu ndaanaan la moom. Ah. mais barki maam Serap Fall nit ku ne da nga nangu cëram mën na bëri loolu mais barki maam Serap Fall maa ko dàq xëy na boo waxee loolu dina am ñu mu jaaxal ah. daan nga amee dem yaakaar naa. waaw bari naa amee dem waaw. ok loolu am na solo ci combat yi taxaw ñooñu nga soxla tournoi boobu mais bu na ñoo soxla. waaw bu dul tournoi am na ñu ma soxla. ñoo xam ne ñooñu suñu combat lañ kii euh, nu mu tuddati Forza mi nga ni boobu ba léegi mu ngi naan moom li mu séq mbëri mooy koj-kojal la xaw moo lay dirigé. waaw man moo ma gënal ñëpp moo leen dirigé moo ma gënal ngalax laa la wax nii. ñi mbëri ñëpp moo leen dirigé. man de su ma bëree woon ak moom su yëkkatee loxo dootu ko defati ba léegi xam na ko moom. su ma bëri woon ak moom su yëkkatee loxo du ngelaw gee ma ëpp li muy wax dama koo gëm te loolu moo nekk ci man. nga du ngelaw gi moom ma ëpp du micro yooyu ma tiim laa wax. waalo la mujj de. waaw looloo tax ma bugg koo jël nag. sa waalo koy gën gën gën a tàngañ. <laughs> moom Forza duggee ba léegi danga ñu leen Abdou Diouf la mujjee daal da ngay tooñ moo tax mu bëgg koo jël te boom dafa am problème adversaire te man chaque jour damay am problème adversaire ñooñu bëri Forza gars yi ñemewuñ ko ah man de man ñeme naa ko moom ndax koo ñemewul doon nañ dañ ma ko jox mais Forza est-ce que moom kii neexoo ngeen ci doole kii ci taxaw non affaire du ci du ci doole du ci doole ndax bu du woon loolu la euh, nu mu tudd Mame Ndiambane du bëri Tafa Gueye ak ay ay combat ay combat ay combat. la amee xam-xam ni mu toll tamit. Oh, léegi man amee wu ma noonu xam-xam xam naa. am nga xam-xam <laughs> waaw kay mi ngi noonu. bu amee xam-xam ëpp la doole la. bu amee xam-xam ëpp ma doole non mënu ma mënu ma ëpp xam-xam. te su ma jëloon combat nga xam ne. moom daan na fi mbër géej waaye ñaari mbër. daan na fi Ablaye Wade daan fi bor kii. non loolu yëpp du dara cin bokkul safin. loolu yëpp du dara. mos nga bëri mbëru faas. mbëru faas mbëru faas xanaa ndóof. ndóof est-ce que bi nga bëri non ndóof moom nekkul. non deuxième maa bi deuxième la nekkoon. deuxième fois phase la nekkoon. loolu am na solo. budul Forza. budul Forza Lac Rose baax na. sama revanche loolu combat la. Ah, ah, ah, booy bi nekk fi Yoff tamit nañ dañ naan naan day doore nu mu tuddati. booy. Euh, kii euh, nu mu tuddati. booy nga wax de. waaw Malick Niang. ah booy. waaw Malick Niang dañoo ñu bëre. yow de ñu lay rey rek ngay laaj. non man ragaluma loolu lamin damaa toll si laam foo xamante ni il faut am ñooñu ñi nga xam ne comme ni nga ko waxee nii boo kooku da koy rey looloo neex. Malick Niang. Lac Rose Forza Forza waaw. kese waaw Moussa Ndoye. Moussa Ndoye waaw. Moussa Ndoye ak Yékini Junior ak Yékini Junior. dala bëri loo ba nga bàyyi <laughs> ba nga bàyyi mu daan la. waaw comme daan na ma moom loolu ma aw leen lu ma ciy wax dafa maa bëri loo ba ma bàyyi mu daan garaawul. lan la la doole wala lan. non non làmb jooju noonu gars yi ñoo naan damaa damaa bàyyi rek mais làmb defet a ñëw rek ndax damaa bëree bëree bëree bëree ba defet ñëw rek. Hmm. waaw ma defee ba defee ñëw rek. Hmm. noonu la demee xam nga làmb di nga di nga def lépp. mais bu yàlla ne tuddul ne yow xam nga da nga ci war a amee ndam munoo wax a wax a ba am ci ndam ndax nit yenu nañ ko ba ci kaw sax mu mu daan nit dóor nañ ko mu kaawate def rotation nit di ko dàq mu roccee ko mu rëpp loolu yëpp ci làmb la bokk. ok loolu am na solo loolu yëpp ci làmb la bokk. bëre Modou lan moo la ci gën neex. bëre Modou Lo li ma ci gën a neex. Ah, premièrement mooy fit gi Modou Lo moom fitam moom foo ko takk weesu na ko waaw ak sañ-sañ bi. maanaam moom am personne fitam ak sañ-sañ bi moo la gën a neex ak ak osé bi muy osé tamit loolu neex na ma ci bëre Modou Lo. looy waxati waxati moom bu gisee góor gi aussi danaan kon bu qualité Modou Lo li nga waxoon Modou Lo jëlal ci moom qualité loolu ngay jël ci moom waaw loolu fit sañ-sañ fit bi ak osé maanaam taxaw ku mu jàkkaarloo rek jàpp ne moom moo loolu loolu maanaam ci sa gëm sa ci xeetu gëm sa bopp la bokk ci ay qualité bëre nag waaw ci qualité bëreem mooy day song mooy boo ko songee xam na nu mu nu mu nu mu la war a téye te day bëre wet tamit te day bëre wet waaw bëre moo la ci gën li ma ci gën a neex mooy moom tamit sañ-sañ gi moom lu mu jàpp ci lu mu lu ne ci kanam rek pour moom moo la war a attaquer moo la war a song moo la war a daan te genre xeet yooyu noonu ku ko am rek dañuy jàpp ne kii euh, borom jom la borom fulla la te loolu Balla Gaye da ko am Balla Gaye moo la njëkk a dóor moo la war a njëkk jàpp moo la war a moo la war a daan waa loolu neex na ma ci bëre waa Gaye waaw côté bëreem moo la ci gën a côté bëreem mooy Balla Gaye boo ko songee day bëre bu la songee day bëre. Hmm. waaw combat yi mu ñàkk yëpp est-ce que est-ce ñu ko daan songuñu ko. non ñi ko ñi ko daan sonn ñu Balla Balla Gaye boo xoolee dafa taseeg ñoom. ah dafa dafa taseeg ñoom mooy li may wax rek xam nga li ngay def boo ko mënee yenn saa yi da ngay day am ay combat yoo xam ne nii da ngay jàpp ne dangay ñëw rek jaar jàll erreur yooyu noonu excès de confiance day day day day day torompe mbër. lan mooy fooram Balla Gaye jàpp bu jàppee ngeen moom bi yewoo supporters yi jóg taxaw waaw. jàpp ngeen da koo mën même wet tamit bëri wet du koo mën. waaw Balla la ok loolu moo koy daan. Hmm? yii mënu lu koy daan. ah <laughs> ma wax lu koy daan. xam nga xam nga lu koy daan Balla Gaye ah Balla lu koy daan point faible am point <laughs> faible am non naa ko naa ko xam mais ko wax. non foog wax ko dañuy waxtaan. non non nga wax ko tamit taxul ko wax ndax Balla Gaye ci man la bokk ba pare dañu am ay adversaire point faible Modou Lo la. ah non point faible Modou Lo tamit du ma ko wax. <laughs> Lac de Guiers luy la gën li ma gën a neex li ma li ma gën a neex ci moom li ma gën a neex ci Lac de Guiers mooy mbër yi fii fëlti fëlti yëpp ku ci jàkkaarloo moom naan Lac de mën na bëri mën na bëri boo ñëwee teek ngay def di ko seetaan fulla googu noonu ak arñe boobu mu am. ah am na ñu deful tekk de. ñaan ñoo deful tekk. Modou loo deful tekk ba mu def jàkkaarloo moom. non combat gis nga nu mu demee xam nga Sénégal dañuy gis dañuy dañuy gis dëgg ba pare di si dëgg seen tànk. Ah, combat combat bu neex lañ bëre la dëggee dafa bëre Modou loo bëre mais dañuy jëg bëgg wax ne Modou Lo dong moom moo bëre. déet moom kay waxuñu Modou Lo kese ñu si ëpp loolu la ñuy wax non dañuy wax ne la dëggeer daa rasu daa taxaw daa taxaw. Eumeu seen dëggul tekk ba mu moo combat moo moo moo la dëggeer njar ndéem la bu njëkk ba deuxième bi. da koo jaak jàkk affaire mag waaw affaire mag la ko jaare hmm. waaw war nañu bëre di ko ñaanal sunu borom defal ko ndam lu sedd guyit bu gaaw a gaaw a gaaw ci barke Seydina Limamou Sène man li ma jaaxal moom da leen a yëpp moom boo waxee rek mu ne góor waaw loolu moom dëgg la moom mu ngi mu bëgg a yëpp nag mais cette fois ci moom xam nga la dëggeer moom ku xam mooy mooy mooy moo yor fere la <laughs> dëggeer moom xam nga ne mooy mooy frénance du fi booy ñaa indee kopp ko moo ko delloo xanaa bii nii nag moom kàttanu yàlla la déggee dina freiné kii. kon dafa a ko war a freiné ci kàttanu yàlla incha allah. quatre moo tax nag dafa dafa doy dafa doy. dafa xam code yi nag. xam na code yi mais nag noonu la. waaw benn noir day am. benn noir day am mais nag cette fois ci moom day changé quoi. Hmm. waaw ndax combat jël nañ ko au sérieux te dinañ ko préparé dañu war a préparé pour daan. Hmm. ci kàttanu yàlla. Ah? la dëgër un. mooy sa mooy sama idole. ci ay jikko la wala waaw ci bëre. ci ah. bëre la de mooy sama idoon ndax sañ-sañ bi mu amoon ñu ñii ñëpp moom moo ñu formé ci keppaar lañ yaroo. moo jàngal bëre. non jàngalu ma bëre. jàngal bëre. Euh, man mën naa ne euh, booy booy jinne. bu jinne jinne la. waaw. kooku ma ci ñi ma jàngal bëre waaw ci ñi ma jàngal bëre ci la bokk. Ah. mais bu dul loolu am na si loo xamante ni. yàlla moom moo koy def ci nit lu si ëpp boog man maa ko jàng sama bopp lu ci ëpp man maa ko jàng sama bopp ak mayu yàlla waaw. la Lac de Guiers dafa am lu mu mooy euh, fit gi ak jom bi ak gëm loola sa bopp loolu da koo yokk si ñun. ndax bi ñu ànd ak moom. Hmm. xam ne ne mbëri mu doon bëri lépp presque ñoo ko ëpp. mais da ngay ñëw kombaam da ciy def ful def ci jom te ñun ci loolu lañu yaree ñu doon ànd ak moom. moo tax noonu la demee. écurie yi nga xamante ne dañoo cité instant bi dañoo daanu waalo ci la bokk. waalo waaw lu mu ci mën a daane. lu mu ci faas naan dafa daanu. waaw lu mu ci dokke. waaw ci bokk kay. mu ci bokkee benn entraîneur sax ngeen yor léegi. waaw benn entraîneur mais loolu la yàlla ah, dogal. àdduna yaa de woo eree ba àdduna xam nga noonu lay demee. écurie waalo jógoon na fi taxaw am ay am am yoo xamante ni mais tamit li jóge ci écurie waalo ñun dañoo dëgër sax ba léegi sax ñuy kii mais ñu nga xamante ni ñun ñun ñoo tax ñun ñoo ñu def lu ñu doon muy muy Mama ak per Aline Seye ak père Gora Seck ñooñu ku ñu jóge ci sa écurie dans les normes sa écurie dafa war a fay dafa war a tas waratul am ndax ñooñu dañoo woon sookul boo xamante ni bu dëgër si ñun per Aline Seye moo newoon seen ménagère maa ko sax gënal ay njabootam Mama da doon du joxe dépasse këram ñëw jox ñu ñu ne maag la dagee ñu ñu ndékki boo ma ne ndékki naa mu ne mbër dafay ndékki ñaar yoon balaa moo tëdd ñun dañoo tëdd day ñëw yendu ana kii ñu ne tëdd na mu doog continuer doo sañ a dem fenn entrement fajar mu lay yee xam nga koo xamante ni dala formé yow moom rek nga xam ñun da ñun maam rek la ñu xam xam ñooñu ñëpp wàññeeku. kon c'est normal affaire demee nii mais ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci waat ñu ngi ñu ngi ñu xam nga di jéem a defaraat équipe bi ndax ay xale yu am jom ñu ngi fi. di góor góorlu def seeni i preuve waaw. Garga 2 Mama Lamine. waaw Garga 2 komba bu combat bu neex la. waaw combat bu neex la. loo xaar ci combat boobu. non combat la ñoom ñaar ñëpp ko war a neexal ndax tey boo gisee ni signature euh, ni première phase à phase bi demee rek nga xam ne bu fekkee ne ñoom ñaar ñëpp lu ñuy wax disuñ ko jëfe kon combat boo xamante ni la bu dàqu saison bi tamit euh, dina bokk yi dàqu saison bi. Hmm. waaw. ñu bari jàpp ne doole mais Mama Lamine moom mosut a gëm lool. mosut a mooy li ma la wax rek mooy bi ma bi ma waxee lii nga ne ñooñu dañoo am doole xam nga nit gëm sa bopp ci xam nga loolu ci sax ci ci gëm yàlla la bokk maamalaam boo xoolee li ngay wax li muy wax da nga xam ne kii li muy wax ne da koo gëm te nit ki tamit xam nga doo wax loo gëmul moom li muy wax noonu du koo gëm dafa gëm ne la eh, kii ëpp ko doole dafa gëm ne daa ko bëre te nit ki nag sañ ngaa wax li nga gëm mais tekkiwul tamit moom li mu gëm loola war a am mais làmb la ku nekk da ngay xas-xas loo wax mën nga wax ne tey bu ma la jàppee dóor la nga ñëw arbitre xaas mu yëkkati loo xam nga song ko mm-hmm. loolu yëpp la. Garga de lay bëre. Garga 2 Garga ah li ma ko xam li ma ko xam muy bëre Garga 2 dina songu takk la Garga 2 dinay zongale. Mhm. waaw waaw loolu laa jot a gis li muy bëre. waaw zongale bi bu la zongalee ngay kii dala koy dala koy dalay yokk caxabal. Hmm. waaw. Maama Lamine lan lay bëre. Maama Lamine Maama Lamine de dina dina xeex Lamine Maama Lamine dinay song. waaw ci li ma jot a gis su bëre quoi mën na am leen ñuy bëre leneen. comme ñaari songkar lañ daal. waaw ñaari songkar lañ waaw. xanaa kon dañuy daja rek dañuy daje daal en tout cas. Hmm. waaw ku ekk li nga wax bu ñu ko jëfee waaw dañuy daje. ku nekk la nga daan def boo ko defee. dañuy daje waaw. bu doole feeñee. bu doole feeñee ah bu doole feeñee nga yaakaar ne kan moo war a ëpp doole. moom laa lay laaj. ah non xamaguma ko ëpp doole ndax combat bi ñëwagul. ndax tey combat yëpp benn Xaadim Njaay waaw léegi xam nga Lamine dama la bëgg wax ne. Ah. combat dina taxaw prip nga gis kenn ki ëpp kenn ki fuuf ñu dem ba combat bi des une semaine nga ne xanaa du kii moom laa taxawoon di ko présenté kii wala moom mi nga xamante ni moom am combat kii sax dina ne waaye man ba may lekk avance ndax kii laa jëloon avance am ndax développement bi muy am ak entraînement bi muy bi muy def xam nga tamit loolu gars yi il faut ñu sóoraale ko. non mun na ko pour doole ci gis-gis nii xa amoo doole doole leen la. non yow sportif nga nag. voilà barki maam Serafa li muy wax ni dama ko dama ko maîtriser xam ñaari mbër war bu ñu taxawee war nga xam ko ëpp doole. déggoo ma la ëpp doole ak ak ëpp doole ak ak volume ëpp masse bokkul ba léegi. yow leer na leen non mën nañ jàpp ne ci gis-gis. mën na jàpp ne Garga 2 moo ëpp doole ci gis-gis laa wax. mais loolu mën naa bañ a nekk foofu laay waxee quoi. ndax tey bu fekkee ne bu fekkee dañoo taxaw rek boo seen da nga naan moo doole. Hmm. voilà. Tyson Tyson 2 Franc tamit ñaari technicien lañ combat yi neex a ngi noonu combat tamit combat bi njar ndéem ngi noonu. combat yi ngi noonu. ñaari technicien la waaw ñaari technicien la moom. combat bu doole ko jeexal wala technique. technique mën na koo jeexal doole mën na koo jeexal. vrai technicien bi ñoom ñaar moo doon tànn vrai technicien bi. moo doon tànn vrai technicien bi. ci li ñu wane ci li nga xam ci ñoom. ah Tyson 2 laa nga jox. moo dàq bëri. waaw. si li ma gis. nit ku nekk sañ ngaa wax sañ ngaa wax ku nekk sañ ngaa wax li nga li nga li nga yëg ak li nga li nga gis. Tyson li ma gis muy bëre ndax seetaan naa koy mbapat seetaan naa koy arak. Tyson 2 ñu bëri dañuy wax mën a mën a bëreem. lool mën mënoon tuul bëre lool laa la wax. lool mais lan moo tax du ko wane ci arène bi moom day ñëw rek bëgg laa rey genre. foofa yooyu noonu waaw xam nga euh, genre mbër yooyu noonu. da ngay wax dañoo mën a bëre dañoo mën a bëre ngay ñëw xeex ak ñoom léegi ñoom seen jom ak seen ngar mi mooy ñëw dañ lay war ne ñoom mën nañ xeex wax la ñu mujj bàyyi ñu mujj bàyyi euh, bëri bi fee ne jéem a wane xeex bi loolu la mais bu ñëwoon bëre bëre bëre nii rek Tyson de kenn ndax ko bëre. Hmm. Hmm? mais doole yaakaaroo Franc moom moo ko ëpp doole moom bu dee dëgg dëgg rek mooy dëgg mais mën na liggéey doole bu daan Franc. Hmm. waaw. macha allah loolu am na ah, jërëjëf Lamine. waaw li may tàggatoo mooy santaal yàlla julli si yéen bi rek. <laughs> ak kan liir jaan. espagnol espagnol li may tàggatoo Lamine dañuy sant yàlla rek. di xam nga di gërëm sama gaay yi nii sama poulain bi caat bu waalo ki nga xam ne wax dëgg yàlla xam nga jàmbaar la mi ngi wane ay preuve di gërëm garga garga bu waalo grand Lamine suñu coach mais daa am benn butéel boo xam ne bu ñu ñëw entraînement moom lay yor te du nang kenn naan ci di sant sama grand Lirou Diane ah, <laughs> ah. <laughs> waaw di xoolal di jaale sama benn grand boo xam ne wax dëgg yàlla day sonn ci man lool lool lool lool lool su ma amee combat lépp la ciy def ñu koy wax Modou Awa Balla Ndaayaan Modou Gaye maa ngi koy jaale yaayam ji yàlla na ko suñu borom xaare ajjana ci barke Seydina Mohamed di ziar ñëpp xam nga di màgg ñëpp sama sama papa Baye Daouda Wade maa ngi koy ñaanal yàlla na ko sunu borom xaare ajjana kooku sama papa la sama xarit la woon sama sëriñ la woon maa ngi koy jaale Baye Góor di ko jaale famille yëpp di ko ñaanal sunu borom xaare ko ajjana yi kawe ci barke Seydina Mohamed Lamine di ziar ñëpp di gërëm ñëpp di sant waa diaspora bi bu ma demee Italie ñoom Sirajo ñoom Pablo ñoom Madien xam nga waa restaurant maman yëpp ñoom Basiru ñoom xama ñu ngi ziar ñëpp dem France Ahmed Saw Kassi Gora Dieng xam nga Italie Pape Pape Pape Sarr Cheikh bu waalo sama jarbaat maa ngi koy ziar waaw Cheikh bu waalo xam nga di sant sama mag bu jigéen Kine Sarr ak Serif. ñu ngi ziar ñëpp di sant sama famille bi yëpp di sant waa écurie Waalo di ñaanal la de Guiers 2 combat bii mu jëm yàlla na ko suñu boroom defal ndam di sant écurie Waalo yëpp Papa booy Djiné Macha Perera am na combat yàlla na ko yàlla may ndam Baye Ma Ndiaye Talibé Cheikh Assane Thiès su ma limee damay juum xam nga maa ngi leen di ñaanal suñu borom ku ci amul combat yàlla na suñu borom may combat nga am ci ndam lu sedd guy ci barke Seydina Mohamed di di sant tamit. sama ministre Moussa Matar Mouhamadou Matar Cissé maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax di sant sama xarit Lamine Biteye Galaay Laay juuf Daali Jibi Séeréer di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant Dieye seen doomu nday liiru jaan suñu patron waaw Dieye seen ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax waaw Ablaye sëñ Ablaye Diop xaas di sant soxnaam sama rakk sama xarit Sumbulu ñu ngi sant ñëpp di leen ñaanal suñu borom defal leen tawféex ak taysiir di sant sama sëriñ sëñ Babacar Mbacke mu kabro bu baax a baax a baax di sant waa Géejawaay gi yëpp Pape Mama maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax moom day sonn samay combat di sant ñëpp daal di sant Fuuta Kosam ma béy di ba xam nga sant ñëpp daal su ma limee damay juum la maa lay maa lay waaw suñu Xaadim Mbay maa ngi koy sant sama jarbaat Modou Ndiaye Maguette Mbay sama président fan si club xam nga di sant waa Axlu ah. waa axlu kitaab président bi Wariton di sant ñëpp di gërëm ñëpp grand Youssou Youssou Sour moom mooy magu axlu kitaab Papa Ndiaye Basine di ziar ñëpp rek di leen ñaanal jàmm sutura tawféex vie vie vie ndékki borom ndékki mu doon ndame yi ñu ngi koy ziar di ziar Kara euh, Kara Ndiaye sunu borom yàlla na ko defal tawféex ak taysiir barki maam Serafal ndax moom moo ñuy yee fajar di yóbbu ñu si otoom moo grand Lamine xam nga di ko ñaanal suñu borom defal ko jàmm daal li mu mën ren yàlla na mën lu ko ëpp ci barke Seydina Mohamed ak aas ñu ngi ziar ñëpp waaw Abdou Diouf ñu ngi koy ñaanal combat bi yàlla may ko ndam guy gi yàlla may ko ndam ci barke Seydina Mohamed di gërëmaa liiru Diane mi nga xamante ni mooy monument ancien monument géejawaay bi liiru Diane mi nga xam ne mooy ancien géej géejawaay bi non non ancien bi